xam ne ay être vrai nit ngeen boo wujjewul doo yëg liy dox ci yow nekk nit du yëngu parce que nit dafa am ñaari affaire yuy nelaw ci moom dafa am euh, jikko nit ba pare am leneen luy nelaw ci moom loo xam ne jikko mala la tant que wujjewoo nag jikko jooju du yeew yee leen seen jikko mala yi nekk leen ay deuxième femme aawo yi ci kër gi ubbi leen buntu yi xale yi tëggu temps yi xale yi lii lañ jël de soppi lii dangay takk ñaareel ñaw <laughs> yow dinga nga am ñaareel ñaw moo du yow nag li tax nga feebar xanaa xamoo ñi am benn jabar ñépp wéruñ xanaa xamoo grippe bu bari bii célibataire yi rek la daal parce que benn moo soof xale yu góor yi maa leen doon wax naan leen bu leen takk maa waxeet takk leen man xam naa semaine bi dinaa dugg ci dara moom it mu xam lii nga bañ yoon waa marche pas bàyyi ma xeeñ ci ñaareel bi xool lu muy xeeñ noonu ndeysaan yërëm naa ko na yarul rek ma may ko jàmm samay sàcc ay bum ko man ni may wujjee laa leen di wax ah eh animé ma de damay wax dëggantaan sama jëkkër li ma ko tegal lépp mu nangu ko ba tax ma nar a nekk ñaareel nee naa ko di nga jeng ba ñëpp xam ko mu ne ma amul problème loolu am na ba pare. ma ne ko dangay ngay sàcc ay ay mbala nga ñëw ci kër gi ma drogué la mu ne ma jarul drogué dinaa sàcc dépense yi muy joxe na ëpp <laughs> mu ne waaw dama feebar li warul fekk tey ma feebar uy <coughs> ndeysaan leer na ma yóbbu na ma si pa jaata sama wujj bi yaram bee diis ñu ne ko si jëkkër a ngi labar xale buy wax xale buy expliquer mu teel a jug ci man xam ngeen ne sama taar bii du taaru jàmm taaru seet la li muy annoncé sama kanam li mu leen di annoncé nii fulaar ci bopp quatrième fulaar ci bopp dem leen ci Aïda mu génneel leen ay sarax ngeen teel am jëkkër moom du la jox sangat sarax rek jëkkër ñëw fi mu ne nii dala koy assuré ne la semaine prochaine boo bëggee guru gi yegg si <sighs> I love bi baby yow ma bëgg a def ñaareel I love you ay I love you ay ca ñu daal di demaat kii ngi ree ba dee Amina may ma cheveux naturel euh, euh, dikkoon madame Diko ok madame Diko ñëwal léegi ci tele bi ñu may la euh, greffage trois boules yaay choisir sa longueur tata Amina je t'aime trop man la Astou Dieng maa ngi dëkk Maris deuxième femme yee ko yor ay xale yu féroce euh, may nañ la euh, Astou Dieng may nañ la may nañ la cheveux naturel mën nga ñëw fii ci tele bi nga jël si ko Amina sama jabar bëgg na ci yi ngay maye. ay ca bokk Pape Dieng Pape Dieng may nañ la yow tamit euh, trois boules greffage pour sa deuxième femme kat yi da ngay waaj ki nga nopp benn amul jabar wala ki nga nopp dafa siluy sa day nëbb yëfam ma ah? kat yi wuyu ma maay sa mag bul nopp benn célibataire ñu lay tardel wuyu ma xanaa xamoon célibataire dafa retard célibataire bu góor su la takkee da ngay reprendre à zéro ay exercice lañ lay def loo jox la bato bâtonnet ngay compter. boo takkee ko am jabar na xam nga nu muy def ak yow direct mathématique ay géographie eh may sa mag toppal ci samay tànk ki ngay génnal bu dee célibataire la ne ko poté nee noon non kan moo bëgg dem jardin man sama doom ba ñëwee Europe ñu bëgg leen dellu sax école dañ doon jooy tëbal rek <laughs> tëb leen étape àddina bi dafa ay tremblement de terre ngay dégg suuf su yëngu yu garaaw tëb leen yéeg leen ba ñaareel rek sauté ay ca waaw waaw ba ñu ma ci dara yi ma doon tiit yépp naan xale yi dañoo bëgg sëriñ ku fi bëgg sëriñ ma mene damay wujje ku jël oto dugg ci àll bi ma def mël fa wala jàllaa bi dugg ci àll bi waa di crever ci yoon bi ñu ma koy crijal may ngiro ñu may puus foo dem ma dem fa loo takk ci tànk lal bi ma takk lu ko raw ca bopp lal ba damay wujjee <laughs> Sénégal génn leen yëg ko Sénégal dëkkandoo yi génn leen ay <laughs> ca ñu demaat euh, ci Aïda Samb jox ñu euh, Aïda Samb bi euh, le temps que invité bi di dugg di nuyu aawa yi ak ñetteel yi bu baax a baax ngeen baal ma aax nag samay délire la quoi awa yeeg ñetteeli baal leen ma mais maa ngi ñëw bu mu ngeen bàyyi xel ni maa ngi ñëw ay ca jox ñu ay décembre bi abaa te nga daan ma maa ngi seen man noonu laay doxee ba tey di la xam nit ki woo woo fexee la xam moom mooy kan moom it mu xam yow ki nga doon ku ne xam lii sa wàll pourtant ah, dama dajeeg moom démb benn xew ñu doon takk sama doom ah ma yegg di nangu ji sama waru garu doom ndekete xale bii lan woolu ca xew ba mais kii dëbb na xew ba mu mel ni pëndax bate ko bam far <laughs> ay ca léegi nag dinañ ñëw léegi ci euh, ci ñi nga xam ne ñoom la Aïda woo ci jour bi ku ci mel ni ñoom euh, ñoom Bees Diop euh, madame Ndiaye bu Serigne Ndiaye buuna ak ñoom Awa baaba caam dinañ ñëw ci xale yépp ci kanam tuuti ak Assane ah Assane ak Ousseynou Ousseynou ana nga Ousseynou ngi nii cim man xale yi maa ngi ci ñii léegi ci ñii laa bëgg <laughs> bokk ay ca Assane la ak Ousseynou kii mooy Assane kii mooy Ousseynou groupe bi nu mu tudd ambiance du peuple ay ca l'ambianceur du peuple group bi noonu kii jëlaat ko dafa rafet jël ko xale yi <laughs> waaye kan moo la ne sa seex bee la daax ki la ko wax sa noonu yaa ko ndax yal na leen yàlla lafal cet bàyyi leen ñoom ñépp ñuy gën a ànd ay xale yu mën lañ xale yu propre xale yu dégg nag parce que nee naa leen yéen ñi am xew neex na lool ngeen invité xale yu dégg yu mën a wax bala ñuy ñëw ci programme Aïda sàmm bi la 4 waaj leen ko dana neex ndax équipe bi yëpp danañ fa nekk groupe Futurs média équipe bu Prince Art bi yëpp danañ fa nekk kon euh, lumière action day doy sëkk table yu am classe dîner de gala bu amul fenn ayda nag am na ay invité surprise yoo xamante ne mënuñu ko jàllaleegum nii ci tele bi mais nag waaj leen yéen ñi nga xam ne yéen lañ tuddee bés bi ñu dem may euh, Amina taalibe Serigne Saliou sablon baax na Mami Ndiaye may nañ la cheveux naturel mën nga ñëw fii ci tele bi léegi nga jël si ko bu dee sori woo Amina man maa ngi ba euh, tàmba du marate raté sa émission Aïda Fall Aïda Fall yónnil sa mbokk bu nekk Dakar may nañ la fi euh, greffage ñi ngi capturer euh, sa profil sa fekk ñu wax jox la sa greffage ci horaire bi wala koo yónni sans dépend ayca dañuy dem rek jàppal ni man tey dañ ma tax ma nekk deuxième femme li nga yekk xale bi démb dégg naa ko dama bëgg nga yekk lu gën a pur man ñaareel laay waaj a doon mais jàppal ni tey laa ko doon xola wax ma lu rëy bàkk ma ci ñaareel parce que man deuxième femme lay doon dootuma laal aawo boo yow noo gisee ñaareel neex na de ah ñaareel xam naa di nga takk aaw même pas une semaine nga teg ci ñaareel man est ma ñëw rek takk ñaareel <laughs> ay ca bàkk ma may madame X loo ma wax doyul ñaareel laa demal yéen ko validé. dugal taxaw ñaareel a validé. ku validé. ñaareel a validé. ku validé. ñaareel a validé. Amina ku validé. ñaareel a validé. ku validé. ñaareel a validé. Wow. naa. waaw boo dee gëtee ñuy xeex. del àtte ndax doole yamul. mais soo dee gëtee ñuy xeex. del àtte ndax doole Amina boo dee gëtee xeex. del àtte ndax doole yamul. di def bu ñu leen taqee jugal jugal nee naa la man damay nekk nii deuxième femme ci semaine bi na ko ñëpp bind <laughs> ki may wujjal yërëm naa la waaye ñëwal rek baax dan naan boo sëyee baaxal waaye yow mi nga xam ne yow laay fekk si jéemalu baax parce que nii laay wujjeek yow nag <laughs> nga yaruma baay mu sedd nga rew may fël-fëlaale te dootuma démissionné dama ne woon bu ñu ma takkee damay bàyyi mais ci télé bi laay jàkkaarloo yow deuxième femme ah. ah oui xam naa dinañ ma sot mais garaawul am naa paa bu waar benn bañ la yor nala la bongo bi rek accompagner ak tama bi ndànk nga jam ma jaloore ma mën a dégg li ngay wax sénégalais yi lay seetaan xam ne danga mën wuy ma nga di ma bàkk di ma joxoñ ñaareel bu sotti ngay am noonu may def ma manière xool demal waaye Sénégal Thank you. kaas bu kenn tiit yéen xam naa yéen a ngi décoder seen téléphone jëkkër yi wuyu ma te ki may takk na kaay wax la xool leen seen téléphone jëkkër yi <laughs> ki may takk numéro mi ngi jeexee cinq takk ci ndox ak suuf lay liggéey <laughs> xool leen seen jëkkër yi am na ci ku ma jëkkëram di waaj a takk de xool leen seen jëkkër yi te rek ngeen dee laa jéeg yi xam ne danay nelaw ba naaj duñ defar ndékki tey ngeen dee yéen ñi xam ne seen jëkkër yi dañ leen a nopp ngeen dem ba miin seen jëkkër yi yëpp leen tey ngeen dee kii may waaj a wujjal moom xam naa melu noonu sax waaye tey mu dee <laughs> dama ciy toj kaani je blague ah, damay neexal émission bi je blague seulement ay ca ñu avancer ci euh, Aïda Samb bi ñu dem nag ci ki nga xam ne mooy Bess Diop madame Ndiaye euh, bu Serigne Ndiaye buuna moom Aïda woo na ko le 4 mars incha allah foofu ca King Fat ñu déglu li mu koy waxal ambiance.

ñu daal di jàllaat ci Awa Baba Thiam le temps que message bi di daan ci sama kaw euh, nee naa leen nii rek lañ koy defee saa su nekk waaye li ma wax fii sànq ci ñaareel yi am na solo ah parce que tamit ñaareel il faut que ngeen góorgóorlu sëy parce que xam nga euh, euh, takk ñaareel wor la parce que kenn bëggul wujje ci àddina kon yow mi nga xamante ne sa jëkkër dafa ñëw bàyyi la ci kër gi dem takkal la wujj bul bul def ay bul mer yow bàyyi rek ñaareel yi yegg si toog doju xam nga sëy sëy bi Hmm? yéen aawa yi yéen muñ leen te xam ne aawa lu ko gën suñ boroom sàkk ko parce que aawa bu ci ay gaaf sa jëkkër du am lu muy lekk bay takk ñaareel aawa yee fi gën aawa yee fi mën man sama yaay aawa la te man ñetti yoon aawa la <laughs> kon nag aawa yi yéen fair play bu benn aawa mer aawa yi nga xam ne jiguñu seen jëkkër yi ñoom mënuñu wujje parce que seen jëkkër yi amuñ luñ yoree seen kër bay mën di takk ñaareel waaye ñaareel yi yen tamit da ngeen féroce réglé leen poté réglé leen ñaareel yi réglé leen poté calm down <laughs> ñaareel yi réglé leen te bañ a tiital seen aawa yi fi mu ne fitu aawa yëpp dem nañ ndax fan yi ñaareel dafa xew man dama tiit xale yi dañ taxal na jabar yow xew yi ngay tëgg fan yëpp ñaareel la te ay ñaareel jeune fii yu ndaw ay minutes yu mel ni ay petit ñaareel <laughs> Euh, léegi ñaareel yi ah leen ah poté régleel boo demee na nga toog sëy na nga jël sa aawo def ko yaay poté boo yeggee na nga jël sa awo def ko ndeyu jëkkër na nga fonk sëy bi ah tey diisoog sa jëkkër poté bul sàcc ay bul jenguloo xale bu góor bi poté del wax sa jëkkër mu yemale li ci kër gi hmm? defaraat leen kër yi ah ñaareel yi nañu nañu xam ne ñoom i tamit nag tooñ baaxul ah bu leen seen jëkkër yi takk nob leen rek nag ngeen di def yu ëpp mm-hmm. nañ waxante dëgg ñaari daa war di defar mais ñaari lii ma gis asib lañu <laughs> ay ca ñu dem ci aw Baba Thiam moom tamit ñu ngi koy xaar ci programme bi le 4 mars mais bala ñuy yegg ci aw Baba Thiam euh, dañuy may euh, Yacine Diouk euh, moom itamit greffage Amina man ñaareel la maa ngi ciy parti ñaari li eh, man je blague ah damay ambiance xale bi rek comme dafa mën mais man duma ci dara. ñaareel wala ma ma assumé ko rek <laughs> nuru naa seet fa nii de moo tax temps yi weex laay sol ba bañ may tax ci kattanu yàlla xale yi dañ leen di tax ñuy nëbbatu bañ ku leen jiitu ci seen yëf mais man damay yëgli sama yëf semaine prochaine pare leen ci jàkkaay Grand Dakar gi lan may takkee ñama daan maye nag dan soon nee nañ dootuñ ma mayeeti parce que dugg génn bi dafa metti te ñoom it kilifa lan damay dajale ñaari paa rek fay leen ku ne fukki junni ñu takk taxi bi ma dox ay ca euh, Awa Baba Thiam nag ci ngay dem euh, kooku may nañ ko cheveux naturel na ñëw jël si ko fii Amina macha allah loo wax ci ñaareel yi na nga ko yokk dégg nga lii yéen a ngi tooñ de baax na man daal maa ngi ci aawa yi sama yaay aawa la mosu wujje ci àddinaam sama grande sœur Thiané aawa la te xam naa ne du mës a wujje jëkkëram mi ngi may dégg moor da koy fawee nag day bàyyi bañ toog mu naan am na kuñ may waaj a may ko ñu rey la mu jeex <laughs> loolu moom waaw man bëgg naa wujje mais sama mbokk ku ko takkal wujj ma rey la mu jeex Mor Fay yow laay waxal caane du mës a wujje takkal xale bi ngay doxaan nag xam nga boobu ba tey maa ngi ne pat Mor xale bi ngay doxaan ne ko sama jabar du wujje nopp ko nax ko mais fii moom koo fi indi ma rey kooku mu jeex ay ca man dinaa wujje mais sama mbokk du wujje dinaa fekki mais ku ñu fekk suñu gaañ la ayca ñu daal dem ci Awa Baba Thiam xale bu mën bi loo wax ci Awa Baba seexu yàlla bi damal Awa Baba Thiam cëppeelul ci kawam billaay sigi ne ma jàkk ma wax la ñaari baat sanoone duñuy bég bu ñu yàwoo sa bopp liggéey li doo sàccu doo fen dégg sa ne yëkku sa reere bay doy doo talax xaaral awa baaba bonul ndax ndayam bonul awa baaba bonul ndax ndayam bonul awa baaba bonul ndax ndayam bonul waaye gaa dafay may bàkkal nii Bodi Gueye mu faatu géwél Diouf sama laa ilaaha illallaah tey bi may ñëw dam ni tey duma dem te waxuma Bodi kii il faut nga waxal lu rëy barki Serigne Fallou Mbacke taalibe sëñ Mbacke soxna bi waaw yaayu caane Bodi sama jigéen la faatu géwél yaayam moom du wujjee kenn lu mu xewle moom xam nga ne du wujje leer na la. mais lu mu xewle mariage ak xew Assane foo ne ñëwal. mais yow leer na la ne Bodi du du wujje ah Ah, ah voilà. <laughs> mais est-ce que leer na la ni body du wujje. du wujje. xam nga am na jigéen ñoo xam ne nopp seen jëkkër mooy perte la dan lay fawee bala. ndax ñoom du lu wujje waaye Ablaye Dieng. body da koy doy sëkk da koy doy aawa doy ko ñaareel. mais waaye xam nga souvent xale yi dañuy def prox ndoll gas ay paxu janax. dëgg la dëgg la waaye. waaye te de leer na la ni body wujjewul ak kenn. waaye ñun body rek lañuy topp. waaw ñun body gay <laughs> sama ak dina la dal. borom pressing bi ci man lii ma sol da koo fóot ba mu set jox ma ma sol ko bu ko fóotee comme bees séeri Ablaye Dieng loo koy wax. buddi Ablaye Dieng nee na. bu ñu ko takkal bu ko ko yow nii. Serigne Ablaye Dieng Ablaye Dieng nee na gisee léegi nag xam nga ci ku ñuy ñëw lii nag xanaa sañ nañ koo waxtaanee jeeg ji nga xamante ne xam nga tamit kaamax la am na wujj yoo xam ne am leen dafa baax xam nga man tey ku ma sa jëkkër nopp ba takk ma da ngay noppaliku parce que dootul doxaan ba pare dootul takk keneen moo gën ngeen bàyyi seen jëkkër yi ñi ne ci mbedd mi kër gu ne ñu dugg fa xale bu ne ñu wax jaaykatu soow bi ñu waxal jaaykatu yàpp bi ñu waxal ki set ñu waxal ku tilim ñu waxal dalay leer ne am na jigéen ñoo xam ne ku leen takk dañuy damm caabi ji jéeg ji damm caabi ji laay waxal ku ci mel ni maître Dior jaañ kooku damm na caabi ji bak ku ko wax ko lu rëy rëy rëy kooku damm na caabi ji jéeg ji damm caabi ji rek laay waxal ñi nga xam ne ku leen takk dootoo takk ku ci mel ni man man damay damm ay caabi man ku ma takk ma dugg sa kër sa aawoo bu tëddee na nelaw ndax keneen du ñëwaat damay damm caabi ji. moo tax maître Dior da di jeeg boo xam ne. Mhm. tarkaan la macha allah moom la jëkkëram na. damm na caabi ji baax ko. damm na caabi ji moo tax ñu naan jéeg ngërëm. waaw jéeg bu ko jëkkër gërëmee am na ndam moom jëkkëram da koo gërëm. damal bilaay jéeg ngërëm. waaw. nee mun a Saw laa tudd Amina man ci jéeg ji damm caabi yi laa bokk ma dem Saw may Maymuna Muraad Saw ah, ma dem Saw Amina damm naa sama caabi sala Saw mu ilimaan laam moom itamit jéeg juy damm caabi la dama bëgg nga. nga dama bëgg nga. dama bëgg nga teg sa loxo bu baax. ci jéeg ji nga xam ne dañuy xam nga manqué weesuwul dugg keneen ñëw. kon xam nga li ma la bëgg a wax. maanaam ñaareel bu duggee. aawoo. Mhm. bu sa jëkkër takkee ñaareel bonoo mm-hmm. ñàkkoo fayda mm-hmm. yaafu soo ñàkkul ni dañ laa nobul yaa yokk wërsëg bi keneen mën a ñëw te ñun dañuy yokk xeetu Seydina Muhammad peut-être yaa wax lii tey ak la nga daan wax yëpp <laughs> tey nag bàyyi naa Amina dañuy yokk xeetu Seydina Muhammad xale yu góor yi takk leen wuyu ma waaye tamit xam nga ñan ñoo jar a ñi nga xamante ne danoo nekk ñaareel ba pare damm caabi ji kenn du gaatul mm-hmm. sala saw dafa damm caabi ji chéri ilimaan laam xoolal insistel jëmbeelul ci kawam ñaareel xaritu jëkkëram